suñu rew 8 mars demb 8 mars konjon kon bay mars mars mars ben bis aduna bi bëgg tak bu doon semaine fuñu jëm sénégal tay ay julit ñom ñoy jangalé ni julit bi goor bi am jabar warna mëna am maîtresse ñokay teater théâtre de diko duggal ci kër yi am lu bon Apulub li ci ëpp lu bax li ëpp lu bon la dara lu bax newu ci jàngalewul xayyim xiyam jàngalewu ko jikko bu rafet jàngalewu ko lan lay jàngale jigéen buy mbaraan topp jëkkëru jàmbur jëkkëru jàmbur bàyyi jabaram di topp beneen jigéen islaam xaraamal lii wala ak axdaan ngeen di ko tiyaata ay nit di ko def ngeen bëgg ni lu baax la billahi alladi laa ilaha gayru yàq rek lay indi te mi ngi yàq lu bari mu ngi yàq lu bari waaw dañu bëgg a gëmloo société bi la am France la am Suisse la am États-Unis lañ ñu bëgg gëmloo te commencé nañ koo gëm dañ lay gëmloo ne la léegi kon ah yéen a doon xeex polygame commencé ngeen ko saxal ah yéen a ko saxal de waaw yéen a woon góor benn jabar la war a am léegi maîtresse lu ko ci dugal lu ci yoonam ah maîtresse de xanaa moom ku am jabar lay doon lu ko ci dugal. su ngeen defoon li yàlla wax ngeen noppalu bu ñaar ne woon ci kër gi ñett boo doxee sa bët lu mu réeree koo nopp takk indi koo nopp takk indi xanaa ñeent boo ko rombee mënu koo rombaat ñeenti jigéen boo leen takkee amatul jigéen bu la war a jommal boo goree boo tiimee poolab ceeb tibb juróom ñeent fukki tibb dëgg dëgg benn téeméer bi suur war na laa noppal waaw loolu gis nga gis nga nit ñi chaque jour ñu ñuy wan suñu bopp waaw ñu bëgg a dugal ci suñu bopp yoo xamante ne léegi suñu kër yi chaque jour loolu la ñuy seetaan ah di la tegal film yoo xamante ni borom tele yi bokk nañ ci musiba bi danañ ko layeeg yàlla ndax ñoo ko tas ñëpp di ko seetaan producteur bi bokk na ci ki ko bind bokk na ci ña koy def bokk na ci borom bi subhaanahu wa taala moom moo ñu wax ci alquran ne ñiy siiwal lu bon nañu daytalu wala man yàlla ma dal seen kaw yéen a tey nag lu leen neex def leen ñoo ngi ci jamono boo xam ne Sénégal comme France amatul tere xam nga léegi kuñ fiy tere ahlu sikkim yow moom ahlu sikkim booy waxee dafa ndànk gaay dañ lay kii de mais ku mu neex na def leneen du dara nag danañ ko nangu xam ne nattu la bu yàlla teg ahlu sunna danañ ko nangu mais réew mi bu ñu ngi seetaan mi ngi dem rek mi ngi dem nañu bàyyi ci ñag bi rek muy dem na dem rek bis danañu tollaat foo xam ne kenn dootul bëgg jur doom bu jigéen te presque toll nañ fa presque toll nañ fa léegi jigéen ñi fu ñu àgg tey yal yàlla yërëm ma yërëm leen fu ñu àgg tey ci jikko da ngay waar góor ñi fu ñu àgg ci jikko da ngay waar loolu lépp nag ay mbir la yoo xamante ni ku nekk war na koo bàyyi xel suñu àggee foofu xam nga lu muy tekki nit ñi dootuñu daytalu لودول دابة جن حتى إذا أخرجنا لهم دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كن دوت الجم آية القرآن كن دوت الجم وخيون أنتبه كن دوت الجم درة bakkan lañuy gëm dañoo war a dund bàyyi leen ñu ñu ñu